ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmanirahim salallahu ala muhammadin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak taalibe ngi leen di nuyu bu baax di ñëwaat ci seen naafila yi ramadan mu mel ni ñu ci guddi juróom-ñetteel ga guddi juróom-ñetteel ga nag képp koo xam ne julli na ci ñaari raka raka bu ci nekk mu jàng fatiha jàng xul huwallaahu ahad allahu samad ba saar wa jeex fukki yoon ak ñaar nee nan arafu ci nekk des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla jaamu yàlla juróom-ñaar fukki at wala dana ko bindal tuyaabay jaamu yàlla junni at dana mel ni it ku lelle xeetu yonente bi yëpp xeetu yonente bi alayhi wa juróom-ñaar fukki at yoo xam ne de de dégg nga leen di jox ndogu mel na ni it ku woddu xeetu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam yëpp juróom-ñaar fukki at mel na ni it ku goreel junniy jaam te bu ñaanee yàlla mu nangu ko eh, te bu dekkee dana dekki ak leer te bu jéggi siraat dana mel ne ak malax te des na ko ràmmloo juróom-ñaar fukk ñoo xam ne sawara yooyoon na leen kon tuyaa bi yëpp mi ngi aju ci naafile guddig juróom-ñetteel ga kon ñu góorgóorlu ci bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu